jërë ngeen jëf mbokkee mu mel na ñoo ko gisandoo noonu sax arrivé de Ousmane Sonko foofee rek xamante ne si na fa lañ war a amalee séminaire ba wala rek foofu le mu mel na nag saal moo nekk noonu rek ñi nga xamante ne si na rek moo di invité yi eh, commencé ak si rek foofee sa boobe la saal ñu daat ko fay nemmeeku yéen ak gisandoo noonu daanaka rek invité yi ñu ngay ñëw bu baax a baax rek parce que fekk rek li nga xamante ne si na moo di passage de service bi ñoo ko gis gis na noonu si image yi yaakaar naa salle bi moo nekk noonu foofee sa jam ñaajo yaakaar naa gis ngeen ko noonu mel na ne Ousmane Sonko sànq gis nañ ko vidéo mu mel na luy départ jëm foofee nga xamante ne si na moo boobe la euh, cérémonie kon nag yaakaar naa tey ji Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina ko def ak ko ki nga xamante ne si na moo mi ñu gis yële image tamit euh, foofee sa boobe euh, sal rek les dati amal ñu dat ke gisandoo nee na ay kilifa ñu xamante ne ay invité leen daal di ñëw rek fekkee war a fekkee sax boobale passation de service si kooke di Ousmane Bassirou Diomaye Diakhar Faye plutôt Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak kooke di njiitum réew ma suñ jógee fii nag war a jubali nag foofee nga xamante ne si na moo di sa pale de la république daal di joxante la nga xamante ne si na moo di eh, lenge yi kon nag mbokk yi ñoo ko gisandoo noonu eh, ay image yoo xamante ne si na ki nataal di firndeel rek li nga xamante ne si na moo di euh, mardi bi euh, ñëpp di ko xaar nag mu doon bis bu instruct ci Sénégal bés bu symbolique tamit euh, si passage de service di fal seen juróomeelu président mel na nag lii nag départ Ousmane Sonko la woon gis neen garde ñëwee noonu daal koy dar moom kookee di Ousmane Sonko mu génn sol benn yëre bu ñuul di wuyu téléphone moom kookee la di Ousmane Sonko kon nag tey ji daal danaan leen xaar foofee rek centre Abdou Diouf foofee sa jam ñaajo ñu fas yéene fa amal passage de service sa salle bu yànn boobee bu taara boobee ñu daat kee defar ba mën a accueillir li nga xamante ne si ne moo di ay gan ñoo ko gis noonu fata Bassirou Diomaye Faye di sa falata noonu di sa feeñ bu baax a baax kon nag mbokk yi lu si maanaam ak lu fu mën a tukki ko dalal nañ ko toppal dégtal leen ko si seen seen bi di live Dakar 221